tey marque ak record moom la ñu andi ci sunu xatu njëkk moo pressé sunu attention tey jii daanaka Sénégal mi ngi gundaandaat ci record yëglekaay ginnaaw bu ngeen demee Mbour a ca Saloum iPhone mu jaay leen téléphone yoo xam ni yu mucc ayib la numéro baa nga ca 77 290 11 56 77 290 11 56 kii di Saloum iPhone mooy jaay katu téléphone yi nga xam ni moo dekk ci mbiram réew ndax moo ci gën a yombale tey téléphone yam lay jox original benn téléphone boo xam ni bi nekk na téléphone boo xam ni pagoti la abonnement yi dàbbar ñi leen ko record yëglekaay ci xëtt mu njëkk ngeen gis ko noonu daanaka la mu belli avant muy ñëw ci Sadio Mané mooy équipe bu Sénégal bi nga xam ne daanaka fi mu toll nii boo amul sens juróom wala ñeenti trophée yoo xam ne yebbi nañ ko boo boole lépp nag day doon juróomi trophée yoo xam ne daanaka gone yi teg nañ ko ci taaba ji ci record yëglekaay Sénégal moo téye li nga xam ni mooy football africain fi mu toll nii tey bala ko gaayee foqat ci moom a yàgg lool ndax gone nga xam ne ñooy def ab séebo euh, séebo boo xam ne dañuy door a commencé rek ndax gone yi ay xale yu ndaw lan yoo xam ne seen avenir euh, mi ngi ci seen kanam ci record yëglekaay mi nga xam ni andil na ko xëtamu njëkk mbégte moomee nag moo wesaaroo ci mbedd ndakaaru yi euh, ba ci gox goxaan yi nga xam ne moo fasantikoo ci réew yi fu ne lan jóge kon li ci des mooy ñaanal ña nga xam ne ñoo ne ca coupe du monde ba gone yi ànd ak Samba ñëpp a ngi leen ñaanal ginnaaw bu nu ñaanale gone yi ñaan yooyee nga xam ne yàlla sunu borom dégg na ko beneen bi mooy Sadio Mané a lay pis lay dajel moom nag daanaka ab final lay doon euh, ci digganteem ak ki nga xam ne mooy beneen doomu Sénégal di ab défense am di kii di euh, Diallo nga xam ne daanaka moom moomee tamit équipe am xaw naa nege-nege waaye nag Sadio Mané ak Bayern danañ def lu dul tâche pour gagner match boobee nga xam ne gagner euh, moom lañu leen laaj fekk na booba Marca yëgle kaay moom tey ji andiwul football basket la andi a tëcc ba nu nooy népp bi nga xam ne gaañaa nga ko doon def ndekk tëccante bi yëmul dong ci football bi yeneen information ñi koy togg léegi ci Aladji Malick TV gaaw leen ngeen def seen i abonnement taxaar ko